Euh, la 5 TV Bougan, mi ci prison bu Kunda, avec euh, quarante quatre personnes fond, concrètement Lol, daf ñoo dabani euh, à la dernière minute fond que si daal def parce que avant plus de 44 personnes ak ki n'a xam ne mu di Bougane Gueye Dany prison bu di nga xam ne mu di 48 personnes sax euh, Bougane euh, est dans une chambre de 48 personnes euh, d'après ki n'a xam ne mu la 5TV foofu si daanu Tambacounda avant mu nekk loo xam ne itam peut-être jaaxal nañu bëri concrètement du côté de la régie El Hadj <laughs> naka la góor mën a jàngatee une personnalité comme Bougane ñu koy boole plus 48 personnes xam nga fàllu man Bougane musuma ko yene kasso les sénégalais peuvent me tenir en témoin man yagna fi ne Bougane deful même Bougan, même bu jëlee sakam en day dem prison nagn ko tëjal buntu rëbës ñu ne ko doo fi ñew man yagna ko hmm. mais dire que Bougan il est dans une chambre de 48 personnes mais Bougan gënul ces 48 personnes là waa Sen TV li ñu dama jëm ces personnes yu ñu yu fekk ci prison bi gëmul doomu la ay doomu comparé Ousmane Sonko si. dama aussi le privilège qui se trouve dans les prisons qui sont à Dakar n'est pas à Tambacounda il faut ngeen xam D'abord, le privilège qui se trouve dans les prisons à, Dakar, ce privilège-là n'est pas à Tambacounda. Moi, madame, si on est dans le Cap Maniel, Ousmane Sonko a une chambre de 300 mètres carrés. <laughs> Comme le dit l'autre. Mon bougan, moi, quoi. Mais Ousmane Sonko, Cap Maniel, a une chambre de 300 mètres carrés. Ou le cœur de. Ou le de 300 mètres carrés. Chambre. De 300 mètres carrés, là, Ousmane Sonko a Cap Maniel. boo demee rëbës su fi Sénégal cent cinquante mille. non non man du ma dugg ci débat boobu Bougane moo ko wax <laughs> day wér d' accord alors alors boo demee Tambacounda malheureusement pour Bougane pour l' information y a pas une chambre de trois cent mètres carrés bu nekk la pri ci la prison de Tambacounda bu ñu mën a jox Bougane. il n' a il n' existe pas. mais Alpha <laughs> nañ xool nu ñuy def. ne ak Bougane à Tambacounda a pas une prison à Tambacounda boo xamante ne boo fa demee. diñ fa fekk chambre bu 300 mètres carrés bu ñu war a jagleel bugaan. amul Tamba tamit tàng na de. kunda privilège yi nekk Dakar amu fa Tamba amul moo tax nit ñi war nañu moytu kasoo Tamba dégg naa fi ay nit yi naan non bu ñu jàppee Ousmane Sonko ci jamono Macky Sall yóbbu leen defeere leen ko Kédougou yóbbu leen ko kunda ñoom dañoo xamul lan moo Tamba lan moo nekk kunda xamuñu ko. Moi, ngeen vous donner information bi Bougan se trouve dans une pièce dans une chambre de 48 personnes parce que gënu personnes mais ces 48 personnes. mais Alpha Bougane fait personnalité publique concrètement. Oui, l'amour la ni que ñi fa pas mais c'est aussi ma ma ah. ni que il y a pas de personnalité publique à Tambacounda l'amour la prouver ni que ñu mu parmi eux il n'y a pas de personnalité publique je pose la question lan moo la won ban preuve nga am bu concret buy wane ni que ni bu Bougane ci prison bu mu nek il y a pas des personnalités publiques comme lui. non bokkuñu. Euh, bokkuñu même longueur bu ñuy wax. ban longueur d'onde manam suma ne bu gan xam ne doo Ousmane Sonko. de toute façon Bogan Bougane dina waroon. alors assurer sa sécurité ma ñëw Ousmane Sonko. ma ñëw léegi léegi léegi parce que sa sécurité dafa nekkoon si ay loxo ki nga xamné que. mo léegi bàyyi wax la. concrètement donc tay la sécurité tay to Bougane léegi bàyyi ma wax la bàyyi ma wax la loxoy nguur gi. bàyyi ma wax la ma ko nga mm. comprendre. Mm. Bogan ne jamais n'a jamais été ministre. il n'a jamais été directeur général. xam nga yow quand tu me parles personnalité publique on sous-entend un homme d'État warul dem ak nit ma pour sénégalais comprendre pourquoi Bougan se retrouve dans une chambre de 48 personnes Bougan n'a jamais été un homme d'État il n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été directeur général de quoi que ce soit. Il n'a jamais été PCA. Il n'a jamais été rien du tout. Il n'a jamais été parlementaire, député. D'abord, c'était pour après expliquer la pour la comprendre. Il n'a jamais été rien du tout. À part patron de Gumsabop, euh, voilà euh, des médias voilà ay société yu mu yor il n'incarne pas l'État Bon, demee bo tapé tey tey ci état ci logiciel état on reconnaît pas Bougane Fallou tu tapé ci logiciel de l'état on ne on reconnaît pas Bougan. pour nga comprendre parce que justice dafa am il y a des personnes yo xamantene bo tapé ci logiciel de l'état du Sénégal tu vois leur visage on te dit na qu'on a donc buñ ko yóbbee kaso yoon moi tout moytul yóbbu kii bokkaale ko ak ñeneen ni parce que dafa am figure est à état daf reconnaître c'est un homme d'état mort en ngeen gis ñu yóbbu ko ñu placer la là la la placer la ber la beral la chambre mais Bougane le logiciel de l'état ne connaît pas Bougane de ngeen xam loolu Bougane coow lee bëri de il n'est même pas le chef de l'opposition coow lee bëri ci moom moo tax ngeen yaakaar ni que warul bokk chambre ak sénégalais la xam kay ñoom ñoo war a bokk chambre parce que ils sont au même d'égalité que ces personnes là les personnes là amaana état reconnaître seen visage ni que yoroo nañu lii incarné woon nañu lii comme Bougane comme Bougane yéen parce que coow fi bëri Bougane di tal ay caméra di def ay point de presse ngeen yaakaar c'est une personnalité de l'État non l'État du Sénégal ne connaît pas Bougane il le connaît en fait en tant que citoyen comme toi et moi mais qui dimension bi ngeen ñu wax ni dimension bi ngeen Bougan, ni ne Bougane non warul de ne Bougane comme Sonko non je suis désolé je suis désolé. Sonko dame, son ministre. Sonko était député était parlement. Hmm. Il était à, l'inspection des impôts et domaines. C'est un, un, un, homme d'État. Djangé, qui est école d'administration sénégalaise. Tu beau taper le logiciel de l'État du Sénat, tu, on te voit, tu vois Sonko. Tu vois Ousmane Sonko. C'est pas comme Bougan. C'est pas Malheureusement, Sénégal, nous avons comme man jëmm sama jëmm ji nii man Arfan nit bu tekkiwul dara ñu ne non c'est un homme d'état parce que coow dafa bëri wax man Arfan tey su ma bëree wax nii chaque jour ma taal point de presse ma ne sénégalais yi presse maa ngi invité presse nationale bi ak presse internationale bi ñu ñëw wuyu si ma man Arfan may wax wax wax génne ay dossier di daanal di daanal ba pare man libéré presse bi gannaaw suba ma dóoraat encore benen point de presse. léegi ñu je suis un homme d'état léegi ñu ne homme d'état donc dans nga jàpp c'est très normal. c'est tellement facile au Sénégal. donc da nga c'est très normal dana gaañ bu bëri wax ni nii rek ñu non c'est un homme d'état parce que dès que ngay nit yi dinaa non Bougane waruñu ko traiter non, Bougan c'est un homme d'état Bougane nii c'est l'opposition Bougane n'est même pas le chef de l'opposition dans la liste même de l'intercoalition euh, euh, Sàmm Sa Kàddu il figure à la 11e, à la 12e position. Il n'est même pas dans le théâtre des opérations. Je suis désolé. Amana, Sénégalais, beaucoup de degré d'affaires mer. Amana, lima ni Sénégalais, biou far ak bougan. C'est normal. Mais de la Bougan n'est pas un homme d'État. Ah bah, Vous n'y rangez dans une catégorie parce que le logiciel de l'État ne reconnaît pas Bougane hmm. en tant que ligne de di wax nii ci ci ci ci mais Bougane mi a xaar suite boppam. non suite Bopom parce que quoi. Hmm. suite Bopom parce que quoi. merci beaucoup il se il figure à la 11 11e position il n'est même pas dans le théâtre des opérations Bien ngeen di tam moo la il a accepté d'être l'agneau du sacrifice man su ma ne bokkoon ci coalition boobu du ma mës a jiiteeloo damay ne hey celui qui est à la tête de la coalition Barthélémy Diaz kaay de jouer le spectacle bu ñu naree jàpp ñu jàpp comme ça affaire bi euh, mais a Bougan qui est à la 11e position il accepte de jouer ce jeu là ba ñu yóbbu la kaso ñoom Barthélémy Diaz ñi ñëw naan di jaay après ku nekk pare ñibbi kërëm jabaram togal ko ceebu jën bu yamamaay mu lekk ba mais c'est ça c'est ça la réalité parce que t'es bu la coalition Sam Sakado, vous avez 5 députés, vous avez que euh, députés. Donc, il ne faut pas se sacrifier à ce point Alors, mais non, non. Vous donc. Vous mettez 10 députés, vous ne sera pas député. mais 10 Mais il ne faut pas se sacrifier à ce point tu n'es même pas chef de l'opposition tu n'es même pas dans le théâtre des opérations Mon bougan bañ na sa bonne, ne moom leader yi ñoom ñoom leader yi lay wax. alors c'est clair mais non, naan se considère pas comme un leader. alors c'est clair c'est clair mais non, mais il faut arrêter. Bougane dafa daanu. Euh, donc qui n'a jamais que mu Bougan, euh, euh, Bougane Gueye j'aime tellement 48 personnes exactement si li nga xam que mu di en tout cas mu nekk loo xam Tam, c'est proche proches ñu koy daal dénoncer mu nekk une information que nous vient justement de la 5TV exactement. exactement alors euh, ginnaaw euh, chapitre Bougane da nga koy daal di kalax daal di dugg itam